Mamadou yi ñu ngi lay nuyu Mhm, maa ngi leen di fay. am nañu mbégte dalal ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay secretaire général honoraire bu Union démocratique des travailleurs Dakar Dem Dikk yore itam wàllu contentieux nga jiite aussi centrale syndicale bi di euh, OGTS organisation des travailleurs du Sénégal alors euh, Mamadou Goudiaby yow bokk nga ci ñuy wax ne euh, maître Moussa Diop yorin wu bon moo ko jëlee ci bopp Dakar Dem Dikk wute xalaat ak ñi jàpp ne li mu wax ci troisième mandat bi moo ko fa jëlee fan nga teg loola nga wax ci moom ak dàq dàq gi ñu ko dàq. jaay muusante dong moom bi mu fi nekkee ba léegi li muy wax sénégalais yépp du dëgg. tuur na leen lëndëm dañu gis ne AIBD taxaw na Sénégal Dem Dikk taxaw na ay projet yi mu fi fekk la Dakar Dem waaye am na ngóor taxawal ko ci ay bis yuñ ko jox jënd ko ay bis lañ ko jox teg ko ci loxoom ne ko doxalal projet bi moom ci coobare boppam ak président de la république ñu saxal projet Afrique de Ndig ak projet yi nga xam ne mooy euh, euh, transport inter transport régional yangarta ak yooyu yooyu ci am la ko taxawal muy lu baax mais boo taxawalee ay kuréel ni nga koy gérer ba mu yaxanal Dakar dem dik man ñun loolu la ñuy xaar hmm. mais li ma leen mën a wax ci bilan ay AIBD ak ak Sénégal dem dikk ak gune dañuy perdre plus de un milliard. kon jar ñu koy samp. naka lañu ñu koy perte. perte bi mooy boo xoolee lu mu dugal ci nit li mu dépense ci ay dépense dugal ko pour ñu dem wuti ji xaalis la mu dépense ci carburant ci salaire ci oto yi muy defar muy dem di jëm di jëli dépense yi ñoo lu muy am ci recette dugal ko ci keesu Dakar dem di moom moo def bilan du Dakar dugg jaabi moo ko defal bilan moom at bu ne dafay def lu ñuy tudd rapport de gestion mooy bilanam lan nga liggéey ci at bi diggante deux mille dix huit ak deux mille dix neuf wane na ne travailleurs yi liggéey nañu ci ñaari at yi quarante milliards dugal ko ci keesu Dakar dem bi état parce que ñun ñoo am protocole d'accord ak Mor Ngom ci ndorteel ba ne Macky dafa doy Dakar Dem Dikk toujours ay grève dañoo bëgg ngeen seetu définitivement Dakar Dem Dikk ngeen seet luy jàngoro ji ak luy saafara si mu boole ñu ak Mor ñu signé protocole d'accord boo xam ne ñoom premier ministre dafa war a def conseil interministériel pour diagnostiquer Dakar Dem Dikk président ne leen man yemuma ci conseil interministériel mais dina def un conseil des ministres bu ñu ministres Sénégal toog mm-hmm. ñu saytu jàngoro Dakar Dem mu ne solution yii laay def mu ne leen baal naa bor set milliards Dakar Dem dañ ko dugal ci seen capital ba léegi dugul ci capital bi boobu fotu conseil d'administration bi la baal na leen bisu tata yi ñu jëloon ñu normal versé dix neuf milliards léegi ni ci def diggante bor bu ñu yore ñoom. Hmm. Dakar Dem Dikk bi mu yoree état ak man li ma leen yoreel ci li nga xam ni moom laa war a verser ci keesu état bés bu nekk parce que boo jëlee ticket yi ni muy jar. Hmm. diggante Rufisque ak Dakar. Hmm. aftu ñu ngi koy fixé cinq cent francs. Dakar Dem Dikk deux cent cinquante francs lañ koy fixé. sene euh, euh, euh, président ne man maa ciy dugal deux cent cinquante yi ndax transport bi yomb yooyu la dajale dajale dajale dajale. diggante dim deux mille seize deux mille dix ak deux mille seize ça fait seize seize milliards ñu tuur ko ci biir Dakar Dem Dikk jox ko Moussa Diop ni mu koy ni mu ko gérer ñoom ñun lañ bëgg xam ni mu ko gérer ba Dakar Dem Dikk perte ci cinq milliards rax ci dolli cinq mille vingt et vingt quarante vingt et vingt yooyu boo ko boolee ak quarante et un milliards yi euh, liggéeykat yi liggéey ça fait soixante et un milliards diggante deux mille dix huit Afrique deux mille dix huit daawaat géej ak daaw waaw yow ñu jox la autant de xaar xaalis ba pare président ne fekk naa fii deux cent trente sept cars mais commandé naa quatre cent soixante quinze bus mu dugg si ñu toog ba deux mille dix huit ci njeexital ba mu commandé waat cent cinquante bus pour que ñu doxal AIBD ak transport interurbain cent cinquante cars yi yu dugg si boo boolee kaar yi nekkoon balaa ministre yi di ñëw juróomi ñaari téeméeri kaar ñoo nekk Dakar dem dikk fu muy ne nii lu matul deux cent kaar ñooy daw cent et quelque rek ñooy daw waaw fu mu dugal kaalis bi bu jëkk buñ ko nee doo defar kaar yi ngay paanal di di denc paan di denc paanal di denc mu ne amaguma xaalis damay xaar ñu jox ma seize milliards yi damay xaar dama jaay suuf yow jaay nga suufu trois milliards huit cent millions ñu jox Euh, euh, euh, vingt milliards en tout soixante et un milliards munoo ci woon a jël nga yëkkati téeméer juróomi téeméeri kaar yi boo yëkkatee juróomi téeméeri kaar cinq minutes bu nekk kaar dina ñëw nga yóbbu nit ñi parce que yow mission service public lañ la laaj hmm. dañ la ne nga transporter sénégalais yi bu kenn sonn mais defaru ci dara mu ne day tabax oto day tabax direction générale tabax ci dara mu ne day jënd pièce dara détaché ñun gisaguñu pièce détaché parce que kaar yaa ngi gaare plus de juróomi téeméeri kaar yaa ngi gaare di xaar ku leen di defar te yéen yaa ngeen di déglu usagers yi maanaam clients yi. Hmm. nee ñu ñoom dañuy xaar kaar waxtu duñ gis kaar parce que day da defarul benn kaar moom li kon neex mooy mu yor xaalis bu jëlul jeex mu koy pasar pasare politique moo ko fi indi. di recruter recrutement énorme ay nit ñoo xam ne amalu ñun benn njëriñ Dakar dem di donc loolu mhm. bu amee ñun dañu ne état dugal na alal bu toll nii ci Dakar dem di mhm. nit société am na fii li ñu am société yi amuñu ko kon état na am ngor ne man maa la nommé en tant que DG mais dama bëgg def audit pour ma xam xaalis yi ma dugal Dakar dem dikk yépp fan la dugg moom Moussa Diop dafa war a dafa ñu war a wax ñun sénégalais yi ak ñun liggéeykatu Dakar dem bi fan la dugal soixante et un yi ci ñaari at yii. mais lan moo tax corps de contrôle yi du ñu ñëw Dakar dem dikk. laaj naa la ko yow cour de vérification des comptes yaa ngi fi OFNAC ngi maa ngi fi. Hmm. ARMP kese mooy def audit te dinaa la wax. Hmm. document wu document wu 2016 laa yor ARMP ñëw di ko audité. ARMP pour mu auditer la da ngay joxe rapport d' attribution des marchés pour mu seet yan marché la joxe ndax jaar na yoon wala jaar yoon xam nga 2016 lu mu def. Ah. dafa lànk bañ a joxe rapport rapport yi. ndax lan moitié ba la joxe. la mu joxe pour ñu auditer ko mooy fi mu ko wóoree ne duñ ko képp fi nga xam ne dañ ko dafa wóor ne dañ koy képp wala wóorul boppam mu bañ a joxe rapport yi. jaay muus la jaay sénégalais yi ba kenn ku nekk boo waxee Moussa Diop ñu ne liggéeykat la waaye perte loo la Dakar dem di dafa perte loo Dakar dem di diggante deux mille dix deux mille dix huit ak deux mille dix neuf plus de dix milliards perte ci gestion perte ci gestion maanaam doxalal kaar yi ñu indi xaalis état jox la xaalis nga defar kaar yi ñu indi xaalis nga yaxanal Dakar dem di moom yaxanalul Dakar dem dik moo perteloo Dakar dem dik hmm. kon daal looloo tax ñu dàq ko dëgg-dëgg. loolaa tax ñu dàq ko dàq bi nag daf ko xam ñetti semaine balaa muy dem ci rajo yi di wax ay tooxi doona pour ñu ne waxut waaye mandat moo ko dàqlu. Hmm. ko muus la. looloo tax may wër ci télé yi ne leen dafay waxul benn dëgg yàgg na tuur lëndëm Sénégalais tey moom feeñ na. d'accord léegi wax nañuy tamit ne Dakar Dem Dikk amel na bor IPRES ay IPM yooyu euh, mais bor yooyu euh, naka la amee dañoo dagg liggéeykat yi te versé wu ñu xaalis bi wala parce que bu dee loolu la lay lay mën a nekk voilà la xaalisu liggéeykat yi la ñuy dagg ci seen payoor hmm. nar koo versé pour seen retraite na ko nar koo versé pour caisse de sécurité hmm. na ko versé pour IPM pour ñu faju hmm. na koo versé euh, coopérative d'habitat pour ñu am ay terrain ak kër versé wul kenn enfin li mu li mu leen yoreel li mu yoreel ci ay bor plus de quatre cent millions à l'IPRES dama la ne moom ñi mu jot a recruter ñu bees ñi mu jot a recruter. Hmm. plus de mille et quelques plus de mille trois cent et quelques agents de recruter ñi mu recruter yëpp kenn versé lu leen IPRES fu mu ko teg te yow nga dagg ci seen salaire ne da nga koy versé benn deuxièmement mu dagg xaalis versé IPM. tey mu ngi yore plus de trente bés bi ma lay wax ak bi may wax ak yow nii hmm. mu ngi yore il fait plus de trente millions coopérative mu ngi leen di yore plus de soixante cinq millions waxatuma la caisse de sécurité ñi nga xam ne da leen a dagg da dagg euh, euh, caisse de sécurité mu ngi leen yore xaalis waaw yow ñu tuur la xaalis bu dul jeex jox la ay kaar yu dul jeex ñu tuur la ko yow yaxataloo Dakar dem di wax ci jolli nga dagg ci seen salaire au lieu nga versé ko fi ñu la wax na nga dem versé nga détourné ko c' est du détournement d' objectif. léegi yéen loolu préparé woon naa. Mm. damaa préparé woon dend plainte pour dem ak yoon ci yoon dem ak ñoom ci yoon. Mm. ci bor bi mu yoreel travailleurs yi. mais heureusement pour lui ñu dàq ko looloo tax même su ma déposé plainte bi léegi. Mm. ku bees bi moo koy yenu parce que man Dakar dem dik laay porté plainte du Moussa Diop laay porté plainte. d' accord donc bañ a bañ a teertu ku bees ci plainte loolu moo tax ma te ma tey téye sama plainte wax naa avocat mu téye plainte bi dëkku bees bi bu ñëwee ñu wax ko li Moussa Diop yore looloo tax ma ne ko il faut mu def l'état des lieux ñu ñëw ñu saytu ko def audit ba xam ñaata bor di ci dagg salaire jàmbur ba pare versé woo ko kooku dañ ko waroon a tëj sax kooku c'est de la criminalité kooku ci de la délinquance financière ñu jox la alalu jàmbur nga dagg ko ci salaire Mandiur bañ bañ ko versé fi ñu la wax nga versé ko c'est de la délinquance financière. d'accord waaw léegi yéen donc mhm. loolu moo tax. Mhm. li ñuy digal ku bees ki état na ko jàppale premièrement pour que lu mu fi fekk ci tooxi doono ñu permettre ko mu defar kër yëpp mu fay bor yi yëpp mu bàyyi xel travail yi yëpp parce que dañoo sonn deuxièmement moom lu Kudelski na tey bu baax a baax a baax a baax parce que passation de service mu ngi ñëw dañ koy signaler document comme quoi yow mii soog a ñëw tey li ak lii ak lii nga fekk Dakar dem dikk bu mu ne waaw de na ne unwu rek unwu bi mooy na signer sous réserve ne damay signer sous réserve ñu def audit Dakar dem dikk mais aussi ñu def état des lieux pour ñu xam lan la ñu bàyyi ci kaar yu paan lan la ñu bàyyi ci ah, bor lan la ñu lan la ñu joxoon Moussa Diop lan la def lan la deful ak lan moo manqué pour yaxanal Dakar Dem Dikk ci AIBD transport interurbain lan la ñu soxla loolu buñ ko amee ba pare mu door a signer une signature définitive d'accord sinon bu signer la mu xamul tooxi doona Moussa Diop yëpp lay gàddu parce que moom gëmloo na sénégalais yi ne yorul benn bor ay kàcc kese la mu ngi yore ay bor yu dul jeex man maa ngi yor ay document man looloo tax ci télé yi damaa bëgg saa yu may wonee document ma jox journaliste bi mu liir ñu xam ne document wu Moussa Diop la du sama document. moom def moo def di lalam at bu ne ñu won ko ne ko moom moo wane ne man dama perte loo kër gi dix milliards. diggante deux mille dix huit ak deux mille dix neuf. d' accord léegi yaa ngi attiré aussi attention wu kilifa yi ci ne dafay dem France gannaaw bi ñu tekkee ndombal tànkam da ngeen ragal mu jaaree fa daw. waaw nit dañ la ne yow dañ laa tekki sa ndomb tànk nga ne la may ma ma daw France te ñëw ñu tekki sa ndomb tànk la deux yow nga ne may ma la quatre ma dem France su ma ñëwaatee le neuf ma def ma def passation de service pour ma wax ñaata laa yàq ñaata laa defar lan laa desee ci kër gi lan laa bàyyil sama naataangoo mais loolu tey na xel léegi ñun jàngat nañu ci ne euh, Lamine juuf di fi nekkoon yoroon IPRES dafa defoon ay tooxidoono ñu bugg ko jàpp puisque citoyen français la mu daw la xatu France dama ne ñun bu muy dem France xamuñu la muy yóbbaale France lan la ndax bagaasam kese lay yóbbaale li muy bu demee France ndax dina ñibbisi puisque loolu wóoruñu ñu ne nañ ko interdire de de sortie du territoire ba def bilan ñu def diagnostic ñu def audit ba mu wax ñu fan la duggal suñu xaalis ñu door koo bàyyi mu libre mu dem def def li mu war a def mu dem nekk libre citoyen sénégalais comme ñëpp. jërëjëf Mamadou Goudiaby amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay secrétaire général honoraire bu union démocratique des travailleurs de Dakar dem dikk yore itam seen wàllu contentieux euh, jiite itam centrale bi di organisation générale des travailleurs du Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax Goudiaby. waaw man maa leen gërëm sant leen.